waa YouTube ak waa AdSense ci li nga xamante ni moom mooy revenu YouTube yi ñuy générer léegi nag euh, taxe yooyu euh, boo xoolee euh, yàgg Google doon na ko annoncé xaw na yàgg ñu bëri doon na leen ko signalé ci seen kaw AdSense mais léegi nag dañ ci am lu leer moo tax parce que envoyé nañ ci ay email ñu bëri jot nañ ay email am ñoo xam ne jotuñu email mais ci seen biir AdSense lañ gis message bi mu apparaître en rouge comme nii ñu bari mu indi leen ay jaaxle waa comme nii message bi apparaître en rouge ci seen ñu defe ne seen paiement moom problème fekk nekkul paiement yi moom problème ngeen xamee ko noonu seulement AdSense muy YouTube ak AdSense demandé nañ nit ñi ñu dugal information fiscale ndaxte gouvernement américain moo leen ko imposé information fiscale yooy lan la nag boo xoolee que mën nañ ci dem ci ay textes yu gudd waaw si centre d'être beeg ay yu demee mais nag comme ñoom résumé nañ ko ci email bi du soxla ñuy dem ci page yi nga xam ni am na fu ñu ko expliqué loo xam ne war na mat ay 4 wala 5 pages lire nañ ko nag ba mu jeex. voilà pour détail bi niñ koy defee li tax ñu def ko boo ko deful li mën a fekk yépp léegi nag ñun dinañ ko résumer rek wax leen ko mu gën a simple voilà du jar ñuy dem jël texte yooyu di ko liir di ko traduire voilà comme résumé nañ ko ci email bi waaw ñu résumé ko rek ñun tamit muy changement yoo xamante ni euh, boo xoolee lan la changement yi mooy gouvernement États-Unis dañoo bëgg léegi képp koo xam ne da ngay gañe xaalis ci AdSense ngay fay ay tax comme ni nga xamante ni noonu la ko ñi nekk états uni di gagné si AdSense di fay parce que États-Unis boo fa nekkee di liggéey ci nekk youtubeur li ngay gagné si AdSense da nga ciy fay ay taxes da nga koy déclaré di ci fay léegi ñu bëgg nag léegi ci àdduna bi yëpp képp koo xam ni da nga nekk ci AdSense nga am looy fay fay boobu nu muy demee mooy su fekkee li nga xamante ni moom mooy euh, euh, taxes yi documents yi ñu ci war a remplir ci biir AdSense su fekkee defoo ko obligatoirement da ngay fay taxes yooyu muy muy li nga gañe ci AdSense yépp chaque weer AdSense bu calculer ba li ngay gañee dina si dagg loo xam ne day toll ak 24 pour cent yoo xam ni du la ko dugalal ci sa biir YouTube wala sa AdSense da ngay dagg ci source bi maanaam ci li ngay gañe ci publicité yi toujours day xool lu ci toll 24 pour cent mu dagg ko duñ la ko verse su ko defee loolu nag dañ koy verser trésor public américain bi parce que ñoom ñoo ko demandé comme taxe su fekkee nag de remplir li ñu la wax nii su fekkee nag dem nga ci sa AdSense nga remplir information fiscale yi nga ne moom lañ la sant ba ñoom ñu xam ni yow kat sa business at AdSense bi defe woo ko biir États-Unis voilà par exemple mi ngi mel ni maa ngi yor Galsen Tube Galsen Tube maa ngi koy defee en dehors des États-Unis muy Sénégal samay vidéo yépp ñu koy seetaan ñu ngi koy seetaanee France ak Sénégal ak Mauritanie Mali ak yooyu voilà ay Italie ay Espagne exemple léegi man su ma defee déclaration boobu wane sama activité nekkul Sénégal léegi ñoom dootuñu ma dagg li nga xam ne mooy lépp li may gañ gañe AdSense duñu ma si dagg lan la ñuy def mooy dañuy xool vidéo yi nga xamante ni seetaan nañ ko États-Unis kase ma gañe ci xaalis xaalis boobu ma gañe états ci lañ may dagg waa diggante 24 pour cent wala 30 pour cent diggante boobu waaw loolu lay demee su fekkee nag gañu ma benn xaalis États-Unis duñ ma dagg dara amee ah, su ma fa gañee xaalis dinañ ma dagg su fekkee déclaré na soo déclaré wul nag day jël par défaut comme yaa nangul déclaré li ngay gagné ci àdduna bi yëpp moo xam foo ko mënti gagné ak ku mën a seetaan sa vidéo dinañ la dagg 30 pour cent d'office dinañ dagg 24 pour cent wala 30 pour lay demee kon xam nga déclaré bi am na solo trop voilà parce que mooy déterminer dinañ la dagg wala duñ la léegi nag ñoom ñu ne gis nga boo xoolee fii jàpp nañ ni dinañ ko commencer imposer cent pour cent di ko commencer appliquer ci li nit ñi di gagné dinañ ko si commencer def li nga xam ne mooy juin 2021 waane nag. képp koo xamante ni bëgg nga kenn du la ko dagg bul passé le 31 mais pour def déclaration boobu waaw bu mu egg lu mu yéex yéex bu mu passé 31 mais parce que ñoom il faut nit ñi bind déclaration yooyu ñu jël ko en charge déposer ko soo ko commencé xam ñan la ñuy dagg ñan lañ dul dagg ak lan la ñuy dagg waaw duñu bàyyi ba juin bi soog koy def fii lañ bëgg mooy dat deadline dépôt candidature yi wala wala dépôt document yi wala dépôt maanaam boobu nañ ko tuddee noonu wala date limite bi nga xam ne moom la ñu mayee pour nga remplir formulaire boobu mooy 31 mai 2021 voilà boo ko deful ba 31 mai 2021 lépp loo gañeeti ci AdSense automatique dinañ ci vingt 24 pour cent moo ngi nii ci defal ci suuf versé ko gouvernement américain bi voilà loolu mooy li la defal fii suuf léegi ñu defal la fii procédure bi nu muy demee waaw mu ji comment procéder waaw procédure bi du demee lu dul boo duggee ci sa biir AdSense am na outil bu ñu la fa defal moom ngay remplir après boo ko remplir affaire yi jàll voilà léegi changement yooyu lu tax ñu def ko parce que dañoo bëgg rek di dagg ni ñu xaalis yoo xamante dañ koy verser gouvernement États-Unis bi bu ko defee parce que pour ñu méngoog législation bi nga xamante ni moom moo dëppoo li nga xam ne moo am États-Unis voilà noonu lay demee léegi bu ñëwee ba fii ñoom nee nañ waa YouTube ba léegi Euh, dinañ sax ñoom jéem a changer seen euh, réglement yi nga xamante ni muy condition d'utilisation yi bu ko defee loolu dootul nekk ay revenu mais bu ko defee bu boobaa dañ koy tudde ay royalties waaye royalties nag niñ ko mën a waxee bu doon fii ci Sénégal dama koy tudde daal buuñaa buuñaa wala neexal wala ñu koy tudde ay revenu yooyu gagné ñoom dinañ ko changer def ko léegi mu nekk genre buuñaa mu mel daal yow youtubeur nga yaa ngi monétiser léegi ñoom publicité yi li ñu la ci jox buuñaa lañ koy tudde waaw pour pour xam naa dañoo bëgg ñoom pour fésal qualité bi gën a oyof bu ñu ko tuddee noonu daggee du am solo waaye YouTube daal contournement bu ñu bëgg a jël la loolu la ñu wax foofu léegi ñu def nii si suuf quel sera l'impact sur mes revenus maanaam loolu nan lay ban solo lay am wala ban jeexital lay am ci li nga xamante ne moom ngay gañe loolu boo xoolee wax nañ la ko ci début bi jeexital bi mooy lan mooy soo ko déclaré wul jeexital mooy 24 pour cent dinañ la ko dagg soo ko déclaré nag li nga gañe biir États-Unis kese lañ lay dagg loo fa gañewul duñ la si dagg waaw loolu mooy li nga xamante ni moom moo nekk eh, ci biir email bi voilà léegi nag ñu siy teg deen wax ni du lu garaaw voilà du lu garaaw lu lu yenu maanaa la parce que gouvernement yëpp tamit toujours dañuy wër fu ñu mën a amee matière voilà gouvernement moom c'est normal buñ ko deful États-Unis yi nga France moom def nañ ko yàgg France même boo fa nekkee youtubeur am na Sénégal tam question de temps la mais bu YouTube demee ba développé ba ñuy bëri di gagné ñu xam ñu ngi si gagné xaalis bëri dina am législation bu ñu génnee fii pour ngay def déclaration pour yooyu te loolu baax na bu boobaa youtubeurs yi dinañ mën a professionnaliser wu mën a def ko genre entreprise voilà mais xam naa peut-être dina des na tuuti ci kanam parce que loolu eggaguñ si voilà fii boo xoolee boo ñëwee ci AdSense bi gis nga toujours ci kaw boo duggee sa AdSense fi mu ne nii dinañ la defal message bi waa message bu xonk bi voilà boo nag boo ko defee nag boo cliquer fii gérer les informations fiscales waaw dina lu yóbbu ci information fiscale yi fi nga ko war a defee voilà dinañ la wan bu dee fii nga ko jaaree nan ngay def ba egg fa wan la tamit fan nan ko ko mën a jaare fii ba egg fa bu ko defee nag après yow yaay xool euh, nan nga koy defee waaye nag vidéo bi nekkul vidéo pour wan leen lu ñuy remplir information fiscale bi mais ku ko mën a remplir nag mun ko remplir sa bopp mais nag ñun dinañ ñëw def benn vidéo spéciale boo xam ni information fiscale yooyu wan leen nan lañ koy remplir am vidéo bu ñu ñëwee rek bu duggee dañ lay wan directement ni ñuy remplir bii jox bi information bi lañ bëggoon joxe ay leeral parce que dafa bëri ñu ñu si envoyé message tey message ñu jot kenn xamul nu mu toll voilà parce que ñu bëri daf leen jaaxal dañuy gis message bi ci AdSense mu jaaxal leen mais nag ci texte bu guddi bi ma lay wax liir naa ko ba mu jeex noonu ñoom def nañ ci ne soo ko mënee boo koy remplir na nga ordinateur waaw xam naa dañuy bañ mu am ay jafe mais loolu préciser nañ ko ci texte bi ne ku ko mën parce que dafa ñoo def nii est-ce que mën nañu ko remplir ci téléphone wala ci tablette ñuy def réponse suuf ku ko mën na ko defee ci ordinateur parce que moo gën a pratique waaw loolu tam mu tenir doon wax ko loolu daal mooy li nga ci xam ne gis naa ci lu am solo loo xam ne mën naa ko ci ko ci wax leneen li bu ma demee bay mën naa ko waxaal léegi mais bu ma demee sax bay def vidéo bi ci ni ñuy def information dinaa ci insister muy information yi nga war a remplir ci fiscalité bi dafay dëppoo ak yi nekk ci sa mode de paiement AdSense loolu tam nga bàyyi ko xel voilà léegi boo fa bëggee dem boo duggee ci sa AdSense nii mu defal la message bi mën nga cliquer fii directement gérer les informations fiscales fii nga cliquer ko boo cliquer si nga page bi la lay indil bu la indilee page bi di nga fii ngay cliquer ajouter des infos fiscales mu yóbbu la nag fi nga war a dugalee affaire yi commencer remplir information yi voilà loolu dinañ ci ñëw ci vidéo bi topp ci bi incha allah mais urgent wul moo tax waa am nga ba la 31 mai pour def ko waaw du jàmp loo war a def léegi léegi. mais de bu ñu ci defee vidéo pare nga seetaan ko nga jël sa temps remplir ko normal pour bañ a def erreur mën nga tamit bu doon yaa ngi nekk ci accueil bi nii yaa ngi ci accueil bi mën nga tamit nga ñëw fii paiement nga cliquer soo cliquer paiement gis nga fii la la indi bu la indee fii lan ngay def mën nga ñëw fii ci suuf nga def gérer les paramètre nga cliquer ko boo cliquer gérer les paramètres nga wàcc tuuti gis nga nag léegi nga xam ne mooy fi nga xamante ni fi nga bindoon sa adresse ñëpp ñi nga xamante ni jot nañ seen code secret bi ñu koy jot dañoo utiliser woon boîte postale bi ñu joxe woon muy 26 727 bi maa ngi leen demandé balaa kenn di si def euh, adresse fiscale yi na changé lii nga xamante ni mooy information adresse bi nekk ci sen sam mu def ko adresse normale am dëkk voilà mu def ko adresse fi mu dëkk. parce que courrier boo fiscal boo ko defee courrier du fa ñëwaat waaw binduñu fa benn yoon dañ lay envoyé courrier léegi nag moo tax da nga koy def adresse fi nga dëkk nga changé ko pour ñiy envoyé ñëpp bañ a nuróole même adresse parce que loolu mun na indi lu suspect voilà loolu mooy mooy mooy idée bi képp koo xam daal ñi nga xam nag dañoo def si boîte bi te monétiser guñu mën nañoo bàyyi noonu seen information fiscale mën nañoo def même adresse mais ñi nga xam ni ñëpp dañoo monétiser te jot nañ seen code secret ba validé te ñu ngi ko jotee ci boîte postale bi nañu changé adresse bi def seen adresse normale adresse normale boobu après moom la ñuy def ci information fiscale yi waaw loolu ngeen bañ ko fàtte boo ko defee suba bu ñuy def vidéo dinañ dinañ ñëw wan la beneen yoon bi ñu la wan boo jaaree fii yaa ngi ñëw fii information fiscale fii ngay cliquer voilà boo cliquer fii cliquer gérer les information fiscales après nga dem remplir ko voilà ñi ko bëgg remplir seen bopp bu ñu cliquer fii dina leen jox information détaillée ñu remplir ñi nga xam nag dañoo bëgg xaar bañ def ci vidéo après mën nañoo xaar vidéo bi topp ci bii dinañ leen wan ni nga xamante ni noonu la ñuy remplir information fiscale yi lii mooy li nga xamante ni daal bëggoon nañ ñëw euh, e-, expliquer leen ko euh, ci changement yi nga xam ne dina am AdSense bi ñu xam ni nekkul loo xam ne lu garaaw la waane mbir la moo xam ne ku ko deful